ma pose question d'accord Bira pose question. parce que sama question bi c'était <laughs> police touristique. Hmm? Hmm. wax na ba dugg euh, ci secteur bi deux ans. Hmm. dégg naa ñu ngi Lac Rose daanaka deux ans malheureusement sans moyen pour travailler. ça c'est une les résidences qui sont un peu partout dans les différents sites touristiques wax nañ ko léegi question bi ba tax ba tey joxuñu question réponse bu ñu doy. le site de Lompoul qui doit disparaître à cause de l'exploitation du zircon. du zircon. Mm-hmm. zircon bi war a tax sot site touristique Lompoul ñu daal di koy croire te Lompoul ku ko dégg xam nga la fa nekk. Ah hmm? le ministre du tourisme qui n'est jamais allé au Lac Rose pour voir l'étendue des dégâts gis nga Lac Rose. ak inondation yi. boobu moom nañ ah, ah. xaar boobu moom nañ xaar ba ministre tourisme. moom nañ xaar ba ba ministre mu ñëw toog ñu jàkkaarloo moom. waaw ñu wax ak wax politique de non non non boobaa dinañ wax ci secteur waaw si trois points euh, am benn fait important bu ma bëgg aussi ngeen ngeen xam ko. Mm-hmm. te doyen du ma bàyyi ma fenn. Mm-hmm. Euh, tourisme activité euh, importée la. Mm-hmm. yàggul bu ko Sénégal adopté. c'est vers les années 70 la ko Sénégal adopté mm. tourisme activité nouvelle la au Sénégal en réalité donc ce qui fait ñu dañu ko importer indi ko mais dans l'objectif ñu jaay ko ñi nga xam ne ñoom ñoo ko soxla woon ñi nga xam ne seniors yi France par exemple liggéey nañu seen avis yëpp am xaalis bu ñu denc ils sont à la retraite bëgg nañu fu ñu noppal ko dugg nañu fu ñu mm, profiter place ñun dañ ko concevoir pour jaay ko c'était pas pour ñu consommer ko ce qui fait que ñun bu ñu koy concevoir les devises lañ si gisoon bu mm-hmm. amaanaam bu ko bu ko bu ko mettre en œuvre dina permettre Sénégal mu amaat si ay devises mu amaat parce que en ce moment avec le franc français bi nga xam ne amoon na doole touristes yi boo leen indee fee dañuy fee si hôtel yi dañuy jënd mais aujourd'hui avec la crise on a vu que c' important que tourisme bi ñu bañ ko euh, accès seulement si l' parce que mm-hmm. ñële bu ñu ñëwul rek ñun affaire ñu ngi oui ma moi je suis pas d'accord avec cette analyse là parce que souvent dañuy wax ne dañu bëgg am 3 millions de touristes le problème n'est pas là mën nga am 10 10 touristes ñu gën a bàyyi un prix-valide dans le pays que un mmh. million de touristes mmh. parce que nous depuis longtemps on a ciblé le tourisme domestique nombre ne compte peu mmh. aujourd'hui euh, euh, des, destinations comme le Rwanda des destinations comme euh, comme le Kenya c'est des gens qui ont qui ont cité un qui niche où quand les touristes viennent non seulement ils durent les Russes par exemple dañuy yàgg fu ñu dem. Mm-hmm. mais ils dépensent énormément d'argent. donc ce sont ces mm. types de touristes qu'on doit viser. mu bañ a nekk pour benn temps rek euh, euh, un nombre consistant pour benn temps te bu ñu ñëwee amaana lu ñuy bàyyi ci dëkk bi parce que ils font ce qu'on appelle le all inclusive balaa muy ñëw lay fay lépp. lu muy lekk lu muy naan lépp lay fay. Mm-hmm. Mm-hmm. alors que kale bu ñëwee du fa indi dara. xaalis bi lay euh, indi. fii lay jënd lu muy lekk ah. je pense que aujourd'hui l'option du Sénégal c'est comment capter ces nouveaux types de touristes là qui sont dépensiers qui laissent vraiment un plus-value dans le pays par rapport à la à la la ñuy wuti ci dëkk yooyu ñu xool nag exactement foofu laa bëgg a ñëw parce que tourisme ñaari fànn la am na euh, am na l'offre naturelle ak l'offre artificielle l'offre nag li nga xam ne am nga ko ba pare yàlla moo ñu ko may géej moom yàlla moo ñu ko may lépp luy parc yàlla moo ñu ko may mm. mais am na aussi l'offre artificielle offre artificielle mooy li nga amul li ngay fexe ba dem uti ko soo tey soo demee ci Dubaï mun nga dem en plein Dubaï ngay ski te te Touba Dubaï amul amul amul amul neige mm-hmm. mais dañ ko installé pour que clients yi nga xam ne bëggoon nañu dem feneen pour skier te te te suñu ñu amoon Dubaï dem fa ñu compléter offre boobu noonu mais ñun suñu offre naturelle sax ba léegi on n'a pas fini d'exploiter l'offre naturelle hmm. il y a un potentiel inouï qu'on n'a pas encore euh, développé je suis d'accord parce que si ñu bëggee positionner wu comme concurrent parce que tourisme c'est un c'est un monde très concurrentiel si ñu bëggee euh, euh, positionner comme concurrent il faut qu'on cherche ñi nga xam ne touristes yi foofu la ñuy gën a dem ci Afrique lan la ñu uti lu mel ni safari mm-hmm. parce que tey euh, l'ambition de pouvoir vivre en côte à côte avec la nature de vivre des expériences qui sont différentes parce que gratte-ciel boo ko bëggee def Dakar fi ñoom xam nañu gratte-ciel pare mm-hmm. mais am na ñi nga xam ñoom amuñu ko loolu la ñuy wër ñu fexe bu fekkee amu fi ñu indi ko fi bu fekk am na fi ñu xool ni ñu koy redimensionner pour que ñoom si ñëwee qui se mettent à l'aise la réalité c'est que au Sénégal aussi les touristes Sénégal ba pare après feneen lay dem ñuy fexe ba ñu sectionner offre yi lu mel ni euh, gore gore mooy il bi nga xam doo ñëwee Sénégal te gisoo day mel ni ñëwoo Sénégal mais hmm. amul Gorée du ko rek moo fi nekk am na am na am na euh, euh, Caravane par exemple qui a été te a été un site historique comme Gorée donc suñu mënee tey prolonger l'histoire de Gorée sur Caravane ñu articuler ko nit mën na ñëw Gorée pour une semaine mais doyalul bu ñëwee ñu ne ko bo une semaine bii nii doyul soo ñëwaatee mun nga dem caravane mun nga am nit mun na ñëw pour par exemple parc de Djoudj. mais promotion touristique waaw man ah, man nekkoon naa directeur de la promotion touristique directeur promotion la naa jógee ma dem conseil technique du ministre balaa ma ñëw directeur de la de la réglementation hmm. donc li may wax li ma xam la parce que suñ ko deful nit ñi dañuy yóbbu benn yoon demande. suñu proposition yi moo yeggul c'est que loolu sax ça moom c'est typiquement sénégalais. Mm-hmm. ñun duñu amuñu amuñu fin. Mm. mun nañ ñëw ñu bàyyi leen ñu yem Gorée. waaw ñu ne non parc de Djoudj lañ am fekk na y a d'autres sites yu ñu. mën a nga xam ne aujourd'hui par exemple les îles on a une centaine d'îles au Sénégal kenn xamu ko. am na île nga xam ne kenn dëkku fa c'est des îles. ak ah, kenn loolu nag c'est votre rôle nag. promotion boobu ah. loolu lay wax. pour ah. wan Sénégal le Sénégal on fu touristes yi di dem noonu ñun nañu mun ñu ngi base ñu pour que touristes yi gën a ñëw fii mais c' est mm. exemple suñu liggéey en tant que réglementation ñu gën ko mën a def kon mbir mi ci maa ngi ñëw mm. maa ngi ñëw mm. par rapport à la à la police touristique bëgg naa si taxaw bu baax parce que le Sénégal aujourd'hui est un exemple en matière de tourisme parce que police touristique am na Maroc on a même fait un benchmark pour que suñu policiers yi nga xam ne ñoom la ñu dédi ko ñu dem foofu xam comment ça se passe loolu dafay sécuriser destination parce que trois quoi qu'on dise aujourd'hui sécurité am na solo ci tourisme nit aussi doo am sa xaalis fay dem fi nga xam ne leerul la ndax di nga ñibbisi walla doo ñibbisi sooy dem sécurité daf lay daf lay yóbbu donc hmm. dañuy fexe aussi police touristique ñu gën leen doté de moyens ñoom ñu mbayee territoire bi yëpp loolu moo ñuy permettre dissuader certains malfrats yi nga xam ne ñoom dañuy am seen hôtel su suñu ñëwee Sénégal pour déstabiliser Sénégal si hôtel yi la ñuy nekk parce mm. normalement boo fanaanee hôtel chaque jour on doit faire le point war nañu xam kan moo fanaan hôtel fu mu jógee ban nationalité ñaata jour la fi la fi. Ah, loolu fi suñu fi eggul parce que tey avec euh, la ceinture de feu qui qui entoure le Sénégal loolu c'est hyper important il y a ce aussi la taxe de promotion touristique normalement chaque jour boo fanaanee hôtel ci li ngay fay dañ siy jëlee 1000 francs y a francs de plus que ngay fay boobu donc le travail je, je, je répète que c'est un c'est un domaine mais on est en train d'installer les mécanismes mais malheureusement parfois aussi au niveau du ministère du tourisme l'instabilité institutionnelle fait que benn ministre day ñëw mu commencer mm-hmm. balaa moo pare ñu jëlee ko fa beneen ñëw. Mhm. donc aussi boobu plaidoyer la pour que mhm. au moins ça nous ça nous mhm. permette de stabiliser les textes. suñ ko stabiliser rek secteur bi dafay école ñu ne ma sa lépp tourisme ma ne waaw tourisme lu am solo parce que le tourisme est un prétexte pour développer les autres secteurs. tey soo amee hôtel tey ci Ndangaan waxuma hôtel yu fa mais hôtel 5 étoiles soo ko amee ci Ndangaan. pour defar hôtel bi rek di nga soxla menuisier. di nga soxla ouvrier façon bu nekk da mhm. mhm. loolu pour defar ko mais hôtel 5 étoiles foo amee il faut que mu accessible nekkul ne di ko surveiller di ko rénover di ko exactement euh, danañ soxla hôtel 5 étoiles soo ko amee courant dafa coupé parce que c'est des installations am solo donc Senelec dina fa ñëw te Senelec bu ñëwee foofu ak doole descend wàcce ay câble am doole ñëpp ñu ne ndangaan ci alentour war nañ ci am hôtel 5 étoiles soo ko amee dafay soxla ndox kon SDE dina fa intéressé wu léegi su ñu demee si exploitation hôtel yi. ñii ñi lu ñuy lekk. il faudrait que on fasse le nécessaire même si fekkee matériaux yi ñuy conseillé boobu duñ ko jëlee fii mais lu ñuy lekk jën bu ñuy lekk mu jógee foofu noonu. mu développé mu développé foofu mais napp il faut qu'on de plus en plus qu'on qu'on la pisciculture. il mm. pas que le poisson de la mer. mais de plus en plus parce que a on a des zones vraiment propices à la pisciculture pour que jën yi mm. ñu jëlee ko foofu yàpp bi ñu jëlee ko foofu mais maraîchage bi également. parce que y a mm. gars dañuy que toutes les autres activités vont vont graviter autour pour que mu mën a permettre aux populations. léegi mm. mm. secteur touristique qui a été mis en place en mais Birama tontoogul ci lompul de Birama yaa ngi koy tegale lompul. moom kay ma bàyyi rek ma. non Birama question temps Birama bàyyi ñu lompul ba pare. ah d'accord ñëwal woon na déjà nit ñaa am na ñu envoyé di demander ay question déjà am na ñoo bëgg nañu rek barkaati démb laa dem Saint-Louis. Hmm. Université euh, Gaston Berger de Saint-Louis moo organisé benn colloque bu am toole si euh, l'offre touristique hmm. sénégalaise. parce que moo tax may jëjëfal université boobu di ak yeneen université tamit parce que ñoom dañu war a bokk si xalaat bi. Hmm. comme nu ma ko waxee comme c'est une c'est euh, Euh, offre bu bees la tourisme yàggul bu ñu ko adopté il faut que ñëpp bokk ci xalaat yi y compris les journalistes mm. vous aussi les journalistes la plupart su ñu waxee tourisme rek soit jéyee moo am benn xale moo làbb wala benn hôtel moo takk benn journaliste dañu war a di gistu aussi ci tourisme sur la donnée économique du tourisme a indi Sénégal ça aussi on Saint-Louis ma am euh, euh, euh, le colonel bi nga xam ne moom mooy gérer moom mooy gérer aara aara bu Kébémer mm-hmm. fi nga xam fu ñu foofu la ñuy fas yi foofu la ñuy tàggatee fas yi mm-hmm. mu yónnee ma message ne ma ah directeur man su ma sañoon nga ñëw si aara bi xam lu ñuy def ñu xool aussi ni ñu koy defee produit touristique ndax loolu démarche bu sanitaire la mm-hmm. ma jógee foofu noonu ma ñëw mais la veille la ma waa ETS woon ñu ne ma ah

montage ñu di kii ñu woon la euh, euh, nooy nooy nooy nooy kii nooy galopé avec le cheval am na benn parcours nga xam la ñuy entraîner seen mode de reproduction et cetera sax ñu di am fa benn piscine benn centre de loisir ma ne ko lii nii du ma ko bàyyi mu jàll waa RTS foog naa ne ñu ngi lompul dinaa leen woo ñu ñëw comme ça suñu ñëwee ñu échanger ils sont venus on a échangé mais c'était merveilleux pour revenir maintenant à Lompoul Lompoul ñëpp xam nañu ne c'est un site sur le plan touristique bi nga xam ne ça nous vaut beaucoup de succès Mhm. Parce que le Sénégal n'est pas un pays désertique. Mais si on a une partie du Sénégal qui offre ce, ce, mhm. ce, ce désert, c'est quelque chose à, à, à, valoriser. Mhm. Mais je résume que nous sommes dans un, dans un, régime, dans un régime présidentiel. Et nous, on applique la politique du président de la République. Donc, ce qui fait que selon les pôles, on regarde chaque pôle, lan moo ci gën a dox ñu liggéey ci mais malheureusement pour Lompoul vous avez vu qu'il y a un projet euh, euh, euh, euh, euh de Zircon je pense qu'il y a ce qu'on appelle aussi euh, euh, la, société, la, la, responsabilité sociétale de l'entreprise, mais l'ompoule, ce n'est pas un site qu'on va détruire complètement, d'autres qu'on utiliser. Mm. Mais même si on va exploiter le zircon, mais il y a des programmes prévus. C'est pourquoi je vous, inviterai à vous intéresser sur l'après l'ompoule, qu'est-ce qui est prévu, parce que c'est important aussi. Euh, c'est aussi facile de dire non, mais non, que il y a tout un plan, une stratégie qui est... Qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, Birama léegi da ngay waxaat leneen balaa ma dem si doyen boo xoolee Kédougou dëkk ya fa nekk amul benn dëkk boo xamante ni taaru na te pourtant alal dafay génne mënoon na defar dëkk yi donc boo mu boo ma diggee ni lompul l'après lompul qu'est-ce donner dañuy tiit ni mu nekk benn euh, makakuli bantan xaw ma je sais pas les mm. sites de de de. fi ñuy jël d'orpailleurs d'orpailleurs et mm. de Kédougou. je ne pense mm. pas mais gëstu rek y a une chose qui est prévue. waaw nga gëstu quoi.